ngoona yéenekaay gi di enquête mu ñu xamal naa ñu lu jëm ci wàllum xeex jàngoroy coronavirus ji Macky Sall daal nay jël ay matukaayam ndax nag nee na l'heure est grave maanaam fi nga xam ne fi la toll jamono ji daal dinay doy waara te nag am na foo xamante ni bu fa yeggee rek loole nag ak taga témbee lay daal di jur moo tax bépp matukaay boo xam ne kenn ku nekk war na ko see jël maanaam dañu ko war a jël ba mu mat sëkk enquête yéenekaay mu ñu xamal na ñu ndekete yoo nag Macky Sall kaful réewul ci lu jëm ci janoo ak jàngoroy coronavirus ji daal di xeex ak moom moom daat nay génn démb nag arme yu bare bari fas yéene jàkkaarloo ak Covid 19 yéenekaay gi de la Tribune mu ñu xamal lan ñu jamono ji nag Macky Sall dafa daal di dem ci ab guerre maanaam daf cee sóobu guerre totale noonee la ko journal bi nag xëy tuddee ay mesures révolutionnaires yéenekaay gi di source a mu ñu xamal lan ñu dogal yi nga xamante ni njiitu réew mi di président Macky Sall daal na koy jël dafa war a nag ànd ak li nga xam ne mooy ay sanctions yoo xamante ni yu dëgër këcc lay doon maanaam yu dis gann ngir ñi nga xamante ni nag maanaam ñooy dëgër bopp bañ a ak li nga xam ne maanaam mooy santaane yi yéenekaay gi di Libération moom la nga xam ne moom la xëy gis maanaam mooy tolérance zéro amul benn yox-yoxi boo xamante ni dañu ko see war daal di wane képp koo xamante ni rek daan ngay salfaañe li nga xam ne mooy dogal yi maanaam yoon daal di dal si sa kaw yéen kaay gi du l'observateur mu ñu xamal lan ñu Moustapha Guirassy mi nga xam ne ay jamono nekkoon na fi ministre jamonoy Abdoulaye Wade daal nay amee jàngoroy coronavirus ji yéen kaay gi de la quotidien mu ñu xamal lan ñu Macky Sall daal nay jël ay dogal journal bi di source a mu ñu xamal lan ñu lu toll ci téeméer ak juróom benn ay nit ñoo xam ne dañoo njort ne amee nañ jàngoro ji dañu leen ber ca diiwaanu Thiès yéenekaay gi di mu ñu xamal laan am na ñaari famille yoo xam ne dañu leen a quarantaine ca Kaolack lu toll si juróom-ñaar ci ay nit amee nañu jàngoroy coronavirus ca diiwaanu Thiès loo xam ne mët sax ñaari fan yéenekaay gi de La mu ñu xamal laan lu toll ci mille milliards la Macky Sall di génne journal bi di réew mi quotidien mu ñu xamal laan ñu cinquante milliards ngir nag dundal askan wi réew mi ba tey mu ñu xamal laan ñu famille ñi nga xamante ni nag ñoo ko mën nañu génne seen alala ngir nag ñu daal di kay dajale ngir nag kenn du am ay jafe-jafe journal bi nag mu ñu xamal naan ñu Macky Sall démb daat nay wax ne lu toll si nag junni ak juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak benn ci ay nit ñoo xam ne jamono ji nag ñoo ngi leen di saytu ba xam dañoo amee jàngoroy coronavirus journal bi mu ñu xamal naan ñu démb fukk ak ñaar ci ay nit ñoo xam ne amee nañu jàngoroy coronavirus journal bii di source a ñu fekk fa Mansour Diallo mi nga xam ne mooy sous-préfet bu Ndaam ca Touba la mu xamle nee na bépp moodu moodu boo xamante ni ñëw nga ci réew mi maanaam jëm si sa njaboot ba wàll leen ko yow ab criminel la te nag procureur daf laa war a teg loxo njiitu réew mi di Macky Sall ci biir journal bii di réew mi quotidien la mu xamle nee na nag dina jàppale ñi nga xam ne ñooy entreprise yi yéen a kaay gi mu ñu xamal lañu Idrissa Seck ak Malick Gakou ak Pape Diop ñoom nag ak Khalifa Sall Macky Sall dina leen daal dalal Abdoulaye Wade moom dafa yónnee ab délégation ba tey ci biir journal bi mu ñu xamal lañu France démb démb lu toll ci téeméer ci fay faatu bu dee nag Espagne lu si ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ci ay nit su dee nag Italie la fa faatoogun ñeenti junni ci ay nit journal bi di réew mi quotidien andi na ci ay explication lan moo waral mbir mi gën a tar ca diwaanu Italie yéen kaay gii di sunu làmb xëy nag dikk ci combat Modou Lo Ama bi nga xam ne ba mu salfaañoo yàgg na jamono ji nga xamante ni nag la ñu tegoon Luc Nicolaï loxo la ñu bari nag njorto ne combat boobee du am waaye nag ak coronavirus bi daan nay tax jamono jii kenn xalaatudul sax combat Modou Lo Ama ndax corona bépp programme boo xam ne fekk na ko fi daan na koy salfaañe